al di jaamu yàlla ak bu baax waa daara yëpp rek ci bu am solo bi waaye ci xam-xam bu am solo bi di dalal sëñ daam njaay ñu koy wax comme ni mu ko waxee rek sëñ daam njaay malam lu xosee ni eh, ndax ak njàmbaaram kon sëñ daam waxtaan wi li ko tax a jóg lépp daa jëm ci wàllum mbay waaye mbay nag ku ne mbay euh, bala ngaa ne mbay da nga naan fu bay may maanaam ab tool fan lay ne maanaam kon jëmmi bay balaa am lay jiitu mbay mooy suuf saak ah, yëpp rek yee ko jiitu ba nga xam ne doo ko bay bala ngaa bay fu ne da am suuf waaw xëy na mbay mbay mi it comme mbay mii ngay wax bi mbir mi ñu war a njëkk a waxtaane dafa ñu bëri daañ ne ay moyen ak jàppale ku mat ba nga war koo mën ndax xëy na ku jugoon rek ne da ngay bay fan ngay ndax mën nga ko def ndax mooy nii am nga ko waaw waaye daal li bëgg li ñu bëgg tomb yi nga bëgg njëkk bëgg nga nga nga yaatal ko muy muy suuf ci boppam jëmmi suuf si ak kenn suuf lañ war a bay ak jëmmi suuf si boppam nga leeral ñu suuf si nu mu deme ah, ba ba ñëw ci wàllu mbay mi ak jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëñ xabaa noo ngi lay nuyu di la siyaare li nga wax de dëgg la ku ne mbay ne suuf bay nag bu buñ ko tuddee dafa nekk lu yaatu ndax bay ak càmm dañoo ànd dañuy ay seex yoo xam benn mun ci dem bàyyi moroom ja foo dégg bay rek sàmm nga ca biir te loolu sax xam ngeen ne ca cosaan ba léegi diggante xaabil ak xaabil kii da daan béy kii daa daan sàmm yàlla dogal nag ñun ñii di ay sénégalais tey jii nu mën a dem directement rek ci biir bi mooy mbirum suuf ku bëgg a bay faw nga am foo béyee réew mi nag eh, dañoo am aw yoon wu ni doxee tudde ko domaine national domaine national moo tënk suuf ci loi mu mel ne dañu ne état bi moo suuf loolu nag am na lu mu jur ndax ñun dañ daan wax nun maam ñoom day dañ daan jàngat ne ku gor yaa moom ba tax na bari na fi suuf soo xam ne nit ki toog na ci ñaar téeméeri ñetti téeméeri at di fa bay ba bisu tey bii waaye ay maamam ma ko goroon moo tax mu moom loole loolu nag domaine national daanaka mën naa ne da koo dàq nim ko dàqee mooy ñoom dañoo jàpp ne suuf <clears throat> ku ko yor rek te jëriñoo woo ko am na keneen ku nekk sewet ku ko wara a jëriñoo kon képp kuy exploiter suuf koo mën a doon rekk yaa ko yaa ko moom yegg nañu ci loi bi tëral ne boo juddoo fi barab fekk say waajur juddu fa ñuy béy ca suuf sa yow nga dem ba sa waajur wa nga donn faatu dañu laa sant ne juróom benn weer ya cay topp war ngaa dem déclaré ji ne man de suuf si nga xam ne sama waajur da ko yoroon di ko béy dama caa topp <clears throat> fas ko yéene continuer ñu jël nag suuf soosu dénk ko muy compétence transférée ñu dénk ko communes yi communes yi am ci baat waaye préfet yeeg sous préfet yi muy démembrement état di ko contrôler ba tax na yu baree baree bare luy am ci suuf nit ki day toog cosaanoo ca barab maanaam ñeneen jóge ca àll ba ñëw néewal ko ca doole te loolu mooy li am fi mu toll nii ci Sénégal ba tax suuf jafe na lool fi mu toll nii eh, waaye li gën a doy waar mooy <clears throat> loolu dafa ubbi bunt boo xam ne bunt bitim réew la xam ngeen ne ñi nekk Europe wala ñu nekk Amérique ci yeneen continent yi ñoom baykat ya ñooy milliardaires ya waaye nag ñun nag ñoom dem nañu ba suuf ya ñu yore nëpp na yàqu na population bi xëjatuñ fu nañu koo jëriñoo ñu wëlbatiku nag bàbbiku ñëw nag Afrique fas yéene occupé sunu suuf yooyu loola nag gouvernement yi ñu fiy fekk dañuy sukkandiku ci loi boobu ñu naan domaine national ba tax ñuy xotti suuf yi di ko jox ñu ñi waxee ay agro business loolu nag tey tey tey tey moo yaatu fii ci senegal waaye li ma bëgg leeral mooy Sénégal day day réew moo xam ne léppam la ëpp ci réewam waaye suuf suñ mën a bay la ndax ba fi mu toll ni ñuy bay bayaguñu vingt pour cent yi suuf si maanaam téeméeri hectares yu ne Sénégalais yi bayaguñu ñaar fukk ya waaye ñaar fukki yooyu ñuy bay itam fukk ak juróom-ñaar ñetti weer lañ koy bay ci at mi kon ku ne xam na ne exploité guñ ko yàlla nag wàccoo naa ñun sunu borom wàccoo ñun mooy suuf su nooy la eh, suuf su am doole la ndox mu dul jeex moo nekk ci biir suuf si quatre milliards de mètres cubes yoo xam ne renouvelable lañ mooy boo ko tànkee day génnaat day day ballaat dollikuwaat fa te fii napp yi fi nekk mooy napp maastrichtien ak napp phréatique masterchef moo gën a yaatu moo ëpp doole waaye phréatique bi da koy jëkk a waaye du jeex waaye foofu itam daa am côté bu mu nekk waaye lépp li nga xam ne dafa leru géej gi lépp la tàmbalee dakaar ba nga yegg Bakel ndox mu neex a fi nekk mu dul jeex nekk ci biir suuf si suuf si nekk suuf suñ mën a jariñoo amul xeer amul dara nu boole kook naaj woo xam ne naaj woowu day dundal gàncax boole ko gone yoo xam bëgg a liggéey tax na leen di dem ci géej gi waaye téew rek nu nekk ay fàqir téew rek nuy tàllal sunu loxo di yalwaan loo xam ne dañ koy war a dugal ci sunu mburu gi loolu day lu doy war la ñun nag ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na rawatina nuy ay murit war na nu bàyyi xel joxoñ bi nga xam ne sunu sang ba Sëriñ Tuubaa da koo joxoñoon ndax ba mu santaanee war a jot plan jumaay Tuuba fa ko yéene tàmbali yónnee ndar tubaab ba fa nekkoon gouverneur général dana ko xam naa murid yi li leen sëñ Tuuba jaral muy seen bakkan ak seen alal waaye takki ganaar ak sabaari dugub jëpp mu ne war naa mën liggéey lu toll ne jumaa ji la ci sëriñ Tuuba teg mooy kooko de la muy wax loole muy wax noonu mu mel ne ngànt la am na loo nga xam ne man su ma ko ko nanguloon moom mooy liggéey jumaa ji ci dooley boppam alali boppam waaye la ma koy jaay moom ma ko jëralul muy sama ngor gi ak sama diine ji ndekete kon ngor ak diini am na ñu koy jaay ngir alal loole nag ba mu amee sëriñ Tuubaa dafa woo sëriñ Mouhamadul Moustapha woo Cheikh Mouhamadul Fadal ñëw la leen ñëw leen dem Touba ngeen teg fa seen cumikaay daa dana sëñ Mouhamadul Moustapha demal Taïf ak Bayda demal Tindoodi tojal tool ya indi daa dana Cheikh Mouhamadul Fadal demal Ndindee Bogoog Saam Yabal tojal tool ya indi ñi ci des toppaat leen sëñ Modou Xabbaan Ahmadou Numbe ma nga Xabbaan ak Déndey tojal tool ya indi gis nga loolee ban ko defee fekk ca loolee Cheikh Modou Moustapha at mu njëkk ma 1932 4 mars 1932 mu teg xeeru jumaa ji at moomee mu am 400000 mille tonnes ñu takkal ko médaille agricole ca loolee ca sukkandiku ba tabax sunu jumaa ji te benn subvention état nekku ci kon nun murid yi war doon xam ne mbay ñun dañ ko war a fonk te itam développement bu nu bëgg a am te jaaruñu ko ci biir maanaam mbay ak càmm yoon wi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Bamba tëral Afrique du génn mukk ci misère du génn mukk ci tàllal loxoom ak yalwaan du génn mukk ci tam di lekk loo nga xam ne loola moo koy dugal bàmmeel waaye teewul nag e, suuf saa ngi fi tey ku bëgg a bay ndax bay ma maam ñoom daan bay ak mbay mii ni bëgg a bay tey jii moo bokk mooyam déedéet mbay mii agriculture moderne la addina day dox bu jëkkoon boo masaan bind bataaxal wala ngay dem màkka danga am juróom-benn weer ci àll bi doog de dee màkka tey nag dangay ngay déparé ci sa kër añ ba noppi dem fanaani màkka la indi loola moo indi changement mbay mii nga xam ne moom moom mooy dox léegi larmet amatul konk amatul léegi ay tracteur a am waaye loola ku ko bëgg a def jumtukaay ya war a àndal tax na suuf si lu bari yàqu na ba bu buñ ko tosul engrais wuñ ko lépp doo mën a am la nga bëgg ba na ko bëgg a amee doo ko ni mën a amee ba da yàq sa liggéey loolu nag doole ko man ndox mi fi mu nekk ci biir suuf nga xam ne dem nañu ba environnement bi yàqu na euh, àll bi dagg nañ ko ba nga xam ne garab amatu ci ba taw bi day ruubee léegi maanaam loola buñ ci sukkandikoo maanaam day génne ndox mi nekk ci biir suuf si bu boobaa itam nu mën a béy te loolu itam doole moo koy mën a def loolu ay moyee moo ko mën a def kon mbay léegi nekkatul yëfi baadoola waaye mbay moom dafa nekk léegi loo xam ne ku am kàttan moo ko mën alerte bi nga xam ne moom la ñuy wax nag mooy réew mi yëguñu lu xew waaye suuf si tubaab yéen koy jëkkante te it yii fi nekk ñu ngi foqar ci suuf si ci ci ci dool ci ci seen kattan ak loi bi ñu tëral tudde ko domaine national di ko jox ay multinational ñu tudde leen ay agro business ñii nga jógee Inde ñii nga jóge Chine ñii nga jóge Espagne ñii nga jóge Maroc ñii nga jóge Hollande ñu tasaaroo ci biir réew mi ñu di leen jox par cinq mille hectares par trois mille hectares par deux mille hectares ñu nekk ay agro business yoo xam ne la ñuy bay su fekkoon sax dañ koy bay ci réew mi jël ko yóbbu ko bitim réew jaaye ko fa bénéfice ba dellusiwaat ci ña ciy liggéey dana am njariñ waaye dañoo fekk néew doole ji nga xam ne mu ngi ci biir réew mi nga xam ne ab gopp yettam la am ak larbetam ànd ak benn soxnaam ak fasam ak mbaam wala mbaamam moo xam ne mu jigéen sax lay doon ba wutut maanaam bëgg a dem ca tool yi bëgg a liggéey yow nga gaale say tracteur yore say milliards yoo xam ne milliards yi bi ngay ñëw fi yoroo ñaari dërëm waaye gannaaw yoo xonq nopp nga rek bu ñu ñëwee dañ lay ubbil ñoom jox la xaaj boobu ba pare ubbi la bunt nga dem ci banque yi leb maanaam boo lebee daañu la lebal ba pare dindil la exonération te loola kat yow soo ko soxla woon yow mi nga xam ne yaa di sénégalais daañu la laaj ban laaj la sa këyitu juddu maam te du tax nga mën a am subvention boobe wala waxuma la ngay am crédit loolu lu ma ta bàyyi xel la kon jot na nu xoolaat sunu bopp jot na ñu xam ne réew yi nga xam ñoo développé wu ci àddina réew yépp ci bay ak càmm lañu sukkandiku imagineel Sénégal gii ak ni mu yaatoo ni mu bare ay garab ni mu amee am ndox te maanaam bu nu demee ba tëbaski jot rek su nu amee xar mu nu rey Mauritanie lañ koy jëlee ji nga xam ne du fa taw wala Mali lañ koy jëlee nga xam ne amuñu sax far géej maanaam ñooñu ñoonuy jaay loolu moo lay xamal ne dañoo sàggane mbay mi dañoo sàggane càmm gi yaar yooyu nag képp koo xam ne sàggane nga ko ci réew maanaam na la wóor ne maanaam euh, ci ci ci ci ci ci yalwaan ngay dëkk li gën a doy waar nag mooy agro business yooyu ñoom xooluñu qualité mbay quantité mbay la ñu soxla pomme de terre bi ñuy bay dañ koy bayee ak seen kàttanu produit yoo xam ne ay produit fat phytosanitaire la yoo xam ne day rey doomu aadama day jàpp doomu aadama dagg ay siditam yàqate ko yàqate yëre biiram te mu di ca du ca man dara loolu nag ku ne xam na ne professeur boo xam ne xam-xamam dafa màcc ci jàngale nekk docteur nee na woon l'homme ne meurt pas il se tue il sa tomb avec ses mooy doomu aadama nee na moom doomu aadama du dee mooy rey boppam waaye nag ñaari li muy gasee bàmmeelam mooy ay bëñam loolu li mu tekki mooy nit ki ndekete dem na hôpital waaye la mu lekk moo ko fa yóbbu waaye nit ki dem na hôpital génn fa waaye la mu lekk moo ko fa génnee te bépp garab boo xam ne ña ngi koy jël di ko joxe ci hôpital ci garab lañ ko jëlee kon loolu war nañu ko war a bàyyiwaat xel su fekkente ne Sénégal dafa bëgg a léegi nag mu dem ci wàllu mbay xeeti mbay yi mbay horticulture mbayum noor mbayum nawet mbayum noor mooy mbay moo xam ne dañ koy roose mbayum nawet mooy mbay mi nga xam ne dangay ngay sa bopp sunu boroom te toog déglu ko waaw mbay moomu nag mbayum noor bi moo waroon a mën a développer Sénégal ndax lépp lu jëm ci wàllu ceeb wala mu jëm ko ci wàllu lu ñuy lekk lu jum lépp lu jëm ci wàllu tomate lépp lu jëm ci wàllu suukar sax muy betterave sucrière wala canne à sucre Sénégal waroon naka mën a am bu jëkkoon dañu ne maam yi dañu ne woon banaana du fi ñor ku ne xam na ne loolu amul kon tubaab yi ba ñu no tàmbalee nax yàgg na waaye dem nañ ba xam ne ndax yooyu mënatutaam ñi ngi nuy nax ci beneen fànn te bu nu sàgganee bu nu sàgganee fii ak ay at juróomi at fukki at ci kanam mboolem fu fi suuf su ñu war a mën a liggéey nekk maanaam gouvernement yii fi nekk ñu ko jël jox ko maanaam ay multinational ñu ñëw installé fi nu nekkaat ay surga ci seen biir te duñ ci man dara loolu lu mat a jóg la te lu mat a dox la te lu mat a wax la te loolu nag lay tax loola du war a am mooy nit ñi nañu dellu yi ne ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke daan waxe ne ko ñu baax ñu daan waxe ne ko sëñ Touba waxoon sante woon sëñ Modou Moustapha ak sëñ Mouhamadou Fadal ñu bàyyi ko fi ni ko xam ne sëñ maam Thierno Birahim maanaam ñeent fukki kilomètre carré la tojoon ca Daarul Muxti te guerre ba nga xam ne moo nekkoon guerre quatorze dix-huit ba problème amee juróom fukki sàqi njuróom yooyu pepp la ñu ko bojjal fii yoo xam ne da ko maabaale woon ñu jël ko maanaam joxal jox ko jox ko soldat seen nekkoon France ngir xam nga ne koo ko xiiful wax dëgg yàlla te loola dara béyu ko ko ay konko ak larmet loolu dong la ko daan defe ak tooba waaye ay mata ak faxa ci la doon liggéey liggéey boob yi ci la daan amee njëriñ lool yi te kenn su ko caa fekk loolee il faut que nu delloowaat ci suñu bopp bu ñu bëggee am développement boole mbay mi ak càmm gi waaye delluwaat ci tool yi toj ko waaye génne ndox mi ci biir suuf si donte lee kenn mënu ko ñu nekk ay GIE walla nekk ay coopérative àndandoo boole suñu doole maanaam suuf si nga xam ne maanaam dañ suñu borom dana ko jox ndox mi nekk ci biir ñu mën koo maanaam jëriñoo ba nga xam ne liñ bëgg lépp daal ko mën a waaye loolu nag il faut une politique de l'état état nag politique agricole amu ca soxla baykat bi bañ na ko ba baa doole la ko tuddee amul sox ci moom soxlu lul soxla carte d'identité am bu wote jotee mu tàllal koy loxoom tàllal ko ñaari junni mel na ko yelwaan mu saraxoo ko boo liggéey maanaam ñaari junni yooyee bis bu ñu ko falee la muy jëkk a def mooy fab ay taxe teg ca kaw ba la nga xam ne moom lay lekkaat mu foqat ci ñaari junni yee ca moom te du ca man dara kooku mooy ñiinu état yi di doxe ak ñun te loolu buñ ci continuer di dem nii rek du sotti te itam ala kulli alin am ñu ko were ñu ko ñu ko wereeteet loolu nag ñi ko waroon discuter mooy ñi dox suñu diggante ak gouvernement yi muy parlement muy député yi député yi seen bopp lañ fa nekkal ndax député bu nekk tey jii ci Sénégal parti ko fa yóbbu partem lay déglu programme partem ca lay doxee waaye député indépendant boo xam ne maanaam dafa war a taxaw taxawal askan wi yor baatu askan wi loolu de moom na leen leer ne amagun ko te tant nag demunu ba yuuxul suñu bopp am fu ju toll ne jógal suñu bopp organiser wu ni transporteurs yi organiser woo commerçant yi organiser wu ko docteurs yi organiser wu ko jàngalekat yi organiser wu ko baykat yi nekk maanaam presque quatre soixante dix pour cent ci Sénégal quatre vingt dix presque presque pour cent ci Sénégal di ay béykat ak sàmmkat ak nappkat te ñoo mënuñoo organiser ba yor benn baat loole moo nu rey te tant que organisation boobee du sotti il faut que nu fexe ba dem ci pencum ndawum réew mi yor kàddu goo nga xam ne. ña fay nekk dañuy am ngor amu fit ànd ko xam boo xam ne bi day mat sëkk te kenn du leen jar kenn du leen bu boobaa la ñuy ñu waxal ko askan wi bu boobaa yaakaar naa ne lu bari ci lu mel ne lii nga xam ne moo di dal dootu nu bu boobaa li nu bëgg daana ko mën a am te bu boobaa képp koo xam ne da ngaa jóge ci bitim réew ñëw ndara a aakimoo suuf si nga xam ne dañoo dem a dem bay di nangu suuf yi bay nangu yàlla armeel yi loolu lu mat a bàyyi xel la te lu mat a jóg la. li may wax nag lu jëm ci wàllu mbay ak mbay la maanaam tubaab yi jóge ci bi ñëw di bay si waaye ñi nga xam ne dañoo ñëw nag léegi ñoom eh, fas yéene jël li nekk ci suufu suufu suuf si xam nga bay li tàmbalee ñaari mètre ci suuf jëm kaw la ndax garab mën na dund bay reenam dem ñaari mètre ci suuf loolu lañ wax ne loolu la ki nga xam ne mooy citoyen lambda am waaye bu weesoo ñaari mètre jëm suuf loolu wàllu état la barab yi nga xam ne dañ ca doon nekk di ca bay yëpp bu ca gàncax feeñee ga gànjar feeñee moo xam pétrole la moo xam or la moo xam jamaa la moo xam zircon ci fii nu nekk nii tey jii maanaam dañuy foqar ci suuf si si seeni loxo délocaliser nit ñi yóbbu leen ci beneen barab yoo xam ne dara du fa nekk ñoom jëfandikoo suuf soosee te quatre-vingt-dix pour cent ci la ciy génn tubaab bi dañ koy récupéré waat yóbbu wax ko bitim réew te duñ ca man dara kon loolu itam lu mat a bàyyi xel la maanaam ñu xoolaat ne domaine agricole bii kii maanaam euh, euh, euh, li ñuy wax ci affaire suuf domaine national lu wat a mat a bàyyiwaat xel la lu war a mën a xooluwaat la waaye war nañu waat xoolaat suuf seetam ni nga xam ne noonu la ñuy seetaade suñu gouvernement yi di ko baraade ñu koy jox ay multinationales yoo xam ne ay tubaab lañu rek ñëw not fas noo yéenee defaat ay jaam ëllëg nu nekk ay surga ci seen biir te bu boobaa itam la amoon Afrique du Sud rek mooy dalaat fii dem ba mu yàgg maanaam réew ma ñu nekk fa ñoom ay jàmbur léegi maanaam la leen neex ñu koy def ca suuf sa te duñ ca mën lool lu mat a bàyyi xel la te lu mat a lu mat a euh, doxal la biir suuf soosu nag kon noo ngi leen di gën leeral rek ne loolu lu mat a bàyyi xel la euh, produits entre intrants yi jafe na suuf si jafe na Euh, matériel agricole bi am na ci tey jii machine yi nji yoo xam ne ñoo mag fuuf président de la république Macky Sall ndax am na ci makki yoo machine yi ñuy tuddee Ulysse Fabre yooyu yooyu daan jógee Marseille 1958 dañ ko firndi woon te ñu ngi dox ba léegi disque yi ak pignon yi dañ koy defaraat tëgg yee koy liggéeyaat ba léegi mi ngi dox kenn mësu koo changé ou siin ou souleveuse arara ak ou firdu yi nga xam ne moom la doon yore ba léegi jógee gu fi gopp akub ëllëer jógee gu fi larme da xëy na gisaguñ ko waaye ba léegi gopp akub ëllëer moom akub daba moom jëlee guñ ko fii ci biir Sénégal kon ku ne xam na ne xaw ma ku développé waaye mbay moom dañ koo sàggane sàggan nga ca nga gën a doy waar tey jii su fekkente ne ñun Sénégal dañu nekk bokk ci mais grand producteur gerte gerte di génnee diw ñu dem ba nga xam ne li turub diw daan jar téeméer ak ñeent fukk ñaari at ci gannaaw dong muy dem ba léegi ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ñu naan ci bitim réew ak ñi doon xeex ci bitim réew tax te yow mi nga xam ne yow yaa bay gerte gi bu ñu ne laa ñëwal segal ko ñu ne dafay am aflatoxine boo ko lekkee da ngay dee Ablaye Wade toog na fii moom en tant que président de l'île maanaam man waxuma la maanaam jiw jiw gerte mais rakkal ci sama sama baay ak samay maam ci la doon lekk ba ba toll nii ma toll sama baay mu ngi dee ci juróom yu topp man mii bëgg naa koo romb ndax maa ngi juróom-ñeent fukki at ak ñeent te bëgg damaa yëgg téeméer te lekk naa ca loola bay bëgg a dee kooku réel kenn kon na bu ñu nu caaxaane loolu yëpp ay caaxaan la mbay mi nañu bàyyi nit ñi di ko utiliser ñu koy transformer ci biir réew mi muy créer emploi ñuy lekk li nuy bay te bàyyi maanaam li nuy jëggaane ci bitim réew maanaam di ko dimbalee néew état yi nga xam ne ñooy bay te état yooyu ñoom ñoom réew yooyu ñoom ba nga xam ne yow bu la mbay mi di jaar fii kilo so so soble fukki euh, ñeent fukki dërëm ñoom bu ñu ko jëlee di ko bay ñoom fukki dërëm ak juróom la dikk bu ñu ko jaayee ñaar fukki sax daa daañu mën a génn loolu lépp bokk na ci loo xare lu mat a xam la bi ci transformation unité de production yi dafa war a am mbay daa war a am lu ko gunge sooy bay da war a am produit da war a am ay usine yu ànd ak li ngay bay transformé ko sooy sàmm da war a am usine yooyu wëlbatiku leroog yow di transformer meew mi di ci def fromage di ci def meewu pëndëx di jël de nag yi di jël ndawal ga maanaam ñu koy lekk waaye ñu jël ba di ko wulli di ci def ay dal di ci def ay mbubb di ci def ay ay ay ay fauteuil sax wala ñu jël béjjénee di ci def ay ay jartu di ci def ay ay ay euh, nuñ koy waxee bouton yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne maanaam dafay génn ci dérivé mbay waxuma nag tos gi nga xam ne moom lay génnee naatalaat suuf suuf sa ba nga xam ne soo ko demee di ko génnee maanaam day daal di am ci yow njëriñ waaye kay jël suuf sa tos ga di yóbbu ca tool ba su ko yóbboo ba sotti ko lay day daal di jël ca ñax ma ca biir tool ba yóbbuwaat ko ci ay nagam wala ay xaram wala ay bëyam loolu mooy lu transversal tant que mbay mi ak càmm gi ñëw lu mel ne ay seex maanaam développement du mën a am te tant que li ñuy béy duñ ko mën a transformer ba mën ko téye juróom benn weer juróom-ñetti yàqu maanaam ba buñ ko waree jëriñoo nu jëriñoo ko ba léegi mbay mi duñ ko mën a jëfandikoo loolu itam bokk na ci loo xam ne lu mat a bàyyi xel la te loolu lépp nag na ngeen xam ne ñun waa Sénégal nañu xam ne loolu mi ngi dox suuf sii nga xam ne moo doon moom lañ bàyyi bàyyiloon nga xam ne nun suñu maam yi yaar yi dong lan am ci moom gent bi ak sant bi man buñ ma laajee njaay laay wax njaay jooju ci samay maam laa ko jële suñu ma laajee lan nga jëlewaat ci say maam lu weesu sama tool yee gent bee nga xam ne moo nekk ci Mirina Ndiaye mënumaa wane feneen kon ñaar yooyu bu ko tubaab yi ñëwee nangu ko ci suñuy loxo war na noo waat seetaat suñu bopp te loolu kat na la woon ne saa su tubaab ñëwee fii rendi nu bu ne gouvernement yi ñoo nu tëral seen bopp ñi nga xam ne noonu noo yëkkati suñuy carte jox leen ko watee leen jox leen seen sunu baat jox leen suñu budget jox leen sunu sunu sunu sunu sunu wér-gi-yaram jox leen sunu njàngam doom jox leen suñu sécurité seen i arme wëlbatikuwaat jox leen suñu budget suñu alali réew mi ñu wëlbatiku ànd ak tubaab yi dinu loree noonu loolu dafa man lu mat a bàyyi xel la te lu mat a seetaat la te lu mat a jàngal la te itam ñëpp dañ ca war a jóg baykat yi dañuy jógaat def benn bopp na nit ñi am ay daw lu waa ku mel ne sëriñ boobu loolu muy def noonu lu am solo la maanaam jóg dem ci ñu sensibiliser leen te itam maanaam loolu buñ ko bëggee def sëriñi daara yii nga xam ne tey ji man jàpp naa ne fekkante fekkantoon dañoo jël waa université teg jël ñu jóge ci sëriñ daara ne leen luy soxali réew mi xam-xam bay génn buy mën a jëriñ réew mi ci sëriñ daara lay jóge waaye du jóge ci université parce que université bi li ko tubaab bi jàngal longu la xam te tubaab bi moom jàngalu nu lu weesu topp ci gannaawam oui monsieur rek tëkk ci lu nu tàllal mu ne oui monsieur jërëjëf monsieur merci monsieur loolu rek waaye fu ñu yéene mukk nu taxaw seen ganam wala wala du nekk maanaam ay ay ci ñoom déedéet loolu moom tubaab du ko may mukk doomu aadama bu ñuul kon sëñ xabban maa ngi taxawlu foofu ndax liñ ci mën a wax bari na waaye damaa bëgg rek ñoo xam ne suuf si moom ci Sénégal lu matawaat bàyyiwaat xel la ci am ko bayit lu jafe la ndax bay tey baadoola mënatu ko bu njëkk baadoola mooy sonn ku jaaxle rek daw dem ca waaye bay tey jii ku amul ay milliards mënuloo bay ko ko ndox mi may wax mu nekk ci biir suuf si ku ko bëgg a génnee da ngay jëfandikoo jant bi te jant bi fa mu toll nga bëgg koo jëfandikoo pour génne ndox bi nekk ci biir fa suuf sa toll yaar yooyu ku leen boole xam ne boo leen bëggee boole xam-xam ngay boole ak alal ak doole loolaay tax nga mën a génne loolu mën koo exploiter mën caa am njëriñ la nga bëgg kon maa ngi taxaw taxawlu foofu yeneen laaj lépp koo xam ne lu wax nañ ko ci rek incha allah danaa ci dem bu soobee yàlla gën leen koo leeral ba mu leer leen nañ waaye def naa ne waxtaan lay doon woo xam ne une semaine lay doon ma ànd ak yéen point par point rek su jàllee nag nu wàlla doo doog a war a dem ci wàllu wér-gu-yaram gi nga xam ne moom itam ni ma maîtriser wàllu mbay mi laa ko maîtriser danaa ci wax loo xam ne itam ba fii nu toll nii ci nii nga xam ne noonu lañ ko la laamee jafe-jafe ci hôpitaux yi loo xam ne maanaam kenn du ko mën a di du benn ministre de la santé bu mën a wekki la bay wax bu boobaa du am itam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh